live ah voilà gars yi maa ngi taw ki nga xamante ne moom mooy Ahmed dem Ahmed maa ngi siyaar. waaw maa ngi lay béggee gars yi di la ziar bu baax a baax di am mbégte. ñu gëj laa gis loolu ci làmb lan moo tax nga laaxatu. waaw saison bii passé la mujjee bëre si fin saison bi maa maag Bruxelles yàlla def ñu am ndam kon donc danoo ñëw fii pour sunu adversaire nan nu jël quoi ku mel ni Modou Anta Modou Anta sama kong maam moom dafa war a doon par force na ñëw nu bëre. yaa ngi dégg nekkul loo xamante ni moom damaa raw wala non non maa ko pay victoire maa ko pay combat na ñëw nu bëre moo doon diisul diisul kan moo diis moo doon da nu mu diisee Brise Lô ko gën diis moo ko dàq bëre te champion laa daan 22 combat la def 22 victoire amul lu may bañe nan ñëw nu bëre biri euh, nu mu tuddati Modou Anta ak ki nga xamante ni mooy waa Fass bi Papa Sow nan ñëw nu bëre. Papa Sow nga tëj sa bëre. Ah, ah déggoo ma amuñu kenn koo xamante ni ëppale nga ma dara. ban diis. ban diis a faas daan magam Ousa Sow na jël combat bi ma dem kees daan fa ambulance moo du anta na jël combat bi ah voilà kon voilà gis nga.